আল্লাহ salaamaaleykum mbokk jullit yi donk yéen ñi saxoo seen chaîne bi di Dakar Actu TV ñu leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam euh, di leen ndokkel ci bésu mawlidu nabi bi nga xam ne ci lañu ñu nekk euh, di bés bu sell bés boo xam ne euh, moom la jagleñ moom lañ jagleel donc juddu ki gën ci yonante yi Ah, di yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen gis ko nag ñu ngi fii ci xëbru Baye Niass di bërëb boo xam ne bërëb la boo xam ne macha allah euh, bëri na taarix bëri na lu fi nekk euh, li koy firndee que boobu ngeen fekk ci biti donc euh, disciples yi ah, fidèles yi bàyyeekoo fu nekk ci àdduna bi ñëw rek ngir ziar si. ci bërëb bi mel na ni daal fi la ñu nekk mooy xolu Medina bàyyi xolu Medina Baye euh, taalibe boo xam ne bàyyeekoo na fu nekk ci àdduna bi bu ñëwee rek bëgg na yegsi ci bërëb bi euh, ziyaara Baye Niass ndokkeel Baye ci bés bi nga xam ne jàpp na ne euh, bés la boo xam ne dafa am njëriñ lool ci moom di bésu mawludun nabi ñu ciy màggal yonante bi nag sallallahu alayhi wa sallam

Euh, ci fajaru mawlud bii nii euh, nan lañ ko fi dundee fii ci bërëb bi moo waral ñu teew fii xanaa ñu xuus rek dugg ci biir jëma xool taalibe yi nan lañ koy dundee ci biir euh, bërëb bi ñu wan leen ambiance bi dund ak yéen ndax te bésub gàmmu lañ nekk dafa jaadu ñu bégal way jullit yi bégal képp koo xam ne saxoo naa euh, donc chaîne chaîne bi di Dakaractu euh, ñu may la li nga xam ne bu fekkee amoo chance teewee fii nga xam ne mooy Medina Baye ñu may la ko nga mën ko seetaan fi nga nekk euh, dund mbégte bi dund ko ak jullit yi bokk ko ak ñëpp xanaa ñu xuus rek jàll ci biir bayaal yi waaw ngeen man ko saytu également ci image yi euh, gis également euh, sécurité bi nga xamné euh, vraiment amna filé nga xamné ci bërëb bi ngir rek mëna a teg nit ñi ci yoon ñu mëna def liggéey bi ni mu waré sécurité ba nga def liggéeyam donc comme il le faut waaye it ci li ñu mëna a également amna ay exigences yo xamné euh, xaar nañ ko ci bërëb bi ndax boy duggu ci entrée bi également ñu ngi xaar ci talibé bi mu sol masque parce que lu ci am solo la masque bi da ci important ndax période euh fièvre jangoro lañu nek hein ah, muy Covid 19. mo waral nak euh, euh boy duggu ci buntu xebru bi mën ngeen ko constater ci image yi sax euh dañ lay exiger nga tak sa masque waaye euh, euh samonter euh, diglé docteur yi. ndax euh, feebar bi la ñuy bañ mu gën di law file nga xam ne moo di euh, médina Baye te xam ne jamono ji euh, taalibe yi bëri nañ fi lool lool lool sax gis ngeen ah, xeetu nationalité bu nekk nag nga fi gis ah sénégalais yi nigériens yi togolais yi donc ñu ngi noonu ñu ngi noonu janook bërëb bi nga xam ne fi la denc Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala donc ngeen di ko seen noonu mu mel ni mooy xolu Médina mu mel ni mooy xolu Médina fii ñëw Médina Baye te yegg si fii mel na ni euh, duggoo Médina Baye donc muy xolu bërëb bi gis ngeen taalibe yi waaye it à côté gis ngeen euh, sécurité bi di Shababul Fayda ak euh, ñi nga xam force de l'ordre également également la police qui est aussi présent donc euh, sur les lieux pour veiller donc euh, à plus de sécurité pour que les pèlerins puissent faire leur ziara donc avec facilité mo waral liggéey bi nga xamné ñu ko fi amal gis nga amul ñëw taxaw ku ñëw da ngay ñëw rek ñaan sa soxla te jàll euh, soxlaw na soxlaw ñu kenn taxaw fii ak diir parce que dañuy bëgg rek mbooloo bi nga xam ne ñoo nekk si biti mën a dugg see également def seen ziar ndax euh, at mu jot maanaam mbooloo mi day gën di bëri moo tax euh, ay dispositif ay disposition yoo xam ne dañ koy jël chaque année également ngir rek gën a yombalal waaye taalibe yi ñu amal ziyaara gu mucc ayib waaw donc niñ ko doon waxee sànq rek gis ngeen euh, bërëb bi ñi ñaa ngi dugg ak génn mbooloo bi bëri nañu waaye ñu ngi jege suñu benn euh, pap fi à côté euh, xanaa jema a taataan kàddoom rek ci bërëb bi nga xam ne fekk nañ ko fi pap ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay ngeen jëf. turu beeg sant bi. Lamine Sarr lañ ma ooyee di am ñoomin ko bu dëkk Joal yaroo fii ci pays bi mhm. ñu ma Bañes Baye jox ma doomam. Mhm. maa ngi nii ci pays bi fii daal macha allah alhamdulilah. Ah, ñu fekk la ci xolu Medina Baye fii ci bërëb bi euh, lu fi sa taxawaay. alhamdulilah fii dafay fuñ ma yaree nekk foo xam ne li ma xam ci àddina presque fii laa ko xamee lépp fii laa ko xamee ndax dañ ma indi 68 fii sama baay ak sa doomi baay. yóbbu ma ci ba ci bàyyi ñu yëkkati ma jox ma bàyyi bàyyi yëkkati ma jox ma doomam ma nekk fi yaroo fi lépp lu ma xam fii laa ko lépp lu ma am fii laa ko amee alhamdulilahi rabbil alamin ñibbi naa nag waaye événement bu xew maa ngi fii di liggéey ni taalube ndax taalube laa ci kër gi doom laa ci kër gi kon alhamdulilahi rabbil alamin dama war a def ni taalube yi di def waaw te bëggoon naa itam raw taalube yëpp ci mbiru liggéey taalube incha allah waaw ñu gis ne boobu ba léegi mbokk taalibe ñu ngi gën di bëri di ñëw di dugg ci bërëb bi di ziar euh, nan nga jàngatee euh, édition gàmmu ren bi. alhamdulilah rabbil alamin loolu jëfinu bàyyi la deminu bàyyi la international la ba ilaa yawmil abad day bëgg di yokk rek ndax man mii di wax ak yow wolof yi may wax leerut waaye nag doomi ñoomen ko bu set wecc la ab séeréer la waaye alhamdulilah rabbil alamin euh, démb ci. onze heures rek am nañ fi vingt cinq pirogues yoo xam ne ca suñu dëkk yi lañ jógee ñu teeru leen ci pooru Kaolack bi te loolu alhamdulilah rabbil alamin mos sa am fen bàyyi ñii ngi jaar ci kaw ñii ngi war mbaam ñii ngi wari saret ñii ngay wari gaal ñii ngi dugg ci avion ñii dugg ci bato yi kooku bàyyi rek ko am looloo tax ñu ne ko international euh, kon suñ dajee ci place bi mënuñoo may nit ñi pour kenn ku ci nekk demee sa sago kenn ku ci nekk rek da ngay mos may sa morom alhamdulilah rabbil alamin loolu moo ñu teg ci place bi. gis ne sécurité bi également mu ngi def liggéey bu mucc ayib. alhamdulilah rabbil alamin li ñu fi teg di sécurité. ah macha allah sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi def seen liggéey tam mën nañ seen liggéey organisation bi baax na macha allah. ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu ngeen jëfati yéen itam. di la ñaanal mawlid ñu jàmm. yàlla na yàlla fa seen aajo ñu dajee fi déwén. jërëjëf ci barke jërëjëf. mu ngi noonu leer na euh, ay kàddu yu ñu doon taataan rek donc ci bërëb bi euh, ñu ngi noonu boo leen xoolee sama ginnaaw tamit di ngeen gis euh, ay mbokk taalibe yoo xam ne ñu ngi toog également di wëyal seen ay ñaan muy lu am solo ah parce que taalibeeg sëriñam dafa am benn donc fil bu important boo xam ne moo leen di lié la plupart donc muy am lu am solo solo solo solo loo xam ne souvent mooy branché euh, ki nga xam ne mooy taalibe bi euh, ba muy mën a am càkkutéefam ci li nga xam ne mooy pays bi donc yeneen gis noonu euh, li leen liyee ak baay foor na ba tax na ñoom ñëpp ñu ngi maanaam def seen kéem kattan daal ba war a mën a dugg fii ci bërëb bi def fi ziyaara wala wax seen ay suwe jéem a tënk seen ay maanaam mbëbët ba jàpp ne rek bu ñëwee fii wax ko fii déy ko Baye Niass war na leen ko mun a fajal euh, ci barkeem. Euh, am na beneen euh, mbokk taalibe boo xam ne ñu ngi koy dégg sànq ba léegi muy fàttali nit ñi ñu téye seen dàll yi waaye fexe participer également ci doxini pays bi xanaa ñu jéem ko approché rek jéem a taataan doom Euh, ba xam euh, mu sànni ci rek kaddu sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam rahmatullah. Mhm. tur beeg sant bi. Abdoulaye Diédhiou. Mhm. Abdoulaye ñu fekk la ci bërëbu baay bi. Mhm. Euh, bëggoon xam rek sa taxawaay ci bërëb bi ah, ak ban liggéey nga fi def. waaw bërëb bii de xanaa taxawaay bi ñu fi nekk rek mooy dimbali suñu sëriñ. di ko jàppale ci liggéey bi muy Baye Alaaji ci taxawaayu taalibe ak ni ñuy doxalee wàllu ziyaara yi. waaw ci la ñuy nekk ak moom daal di jàppalante ak moom saa su ne. gis ngeen ne nit yi bëri nañ lool lool. sànq ba léegi yaa koy fàttali mbokku taalibe yi ñu téye seen dàll yi waaye di participer ci doxini pays bi. Euh, sas boobu noonu euh, wareef la. waaw wareef la ndax euh, saa su ne daf ñuy wax ne maanaam rëcc bi gën a mag mooy ngeen ñëwal ma te fekk liggéeyule leen ma kon ci biir xidma boobu nga xam ne moom la ñu nekk saa rek moom la ñuy nekk di liggéeyal sëriñ bi. waaye nag boole kook teggiin boole ko ak ak ëdëb bu mat sëkk boo xam ne moom la ñu amee di ko liggéeyal sëriñ bi ci bërëb bii nga xam ne bërëb bu sell la bërëb bu tedd la ngir taalibe bu nekk bu fi ñëwee lépp li nga xam ne mooy bëgg-bëggam maanaam mu am ko fi ci ziyaara ci dal ci tey ak lépp li nga xam te moom mooy li ko waral. sécurité bi dal na sa xel. waa sécurité bi dal na suñu xel bu baax a baax ndax ñu ngi ci am nag njàppandalu police waaye it ndaw faydu bi ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak Baye Mbaye MC. muy waa Shababul Fayda ñu ngi def ak ñun liggéey boo xam ne bu jéggi dayo la boo xam ne daal wax dëgg yàlla lu ñu rafetlu la saa su ne at bu nekk rek ñun ak ñoom ñoo fii nekk waaye dëgg dëgg dëgg bërëbu Mawlana Cheikh Ibrahim dinañ wax ne sax maanaam euh, dinañ def rek dañuy def rek li ajoog jamono mooy lépp lu ñu xewle rek wootee ndaw bu guur ñëw dimbalanteeg ñun waaye ñun ndaw Mawlana Cheikh Ibrahim Baay Ñas daf ñoo yar ci ëdëb yar ñu ci teggin bi nga xamante ne saa su ne ñu ni neen rek mën nañoo organiser suñu bopp ñu ni neen mën nañu organiser suñu mbiru bopp waaye nag comme dañuy ànd ak jamono te Baye Niass moo ñu wax ne dee leen dox ànd ak jamono moo tax saa su ne rek dinañ woo ndaw buur mu nekkal ñu fi ngir moom mu mun a xoolal buur xamal ko nekkat kat bërëb bi li li ñu yónni woon kat liñ fa wax ak liñ fa def nii la te noonu la fa demee. pour yombalal ñi nga xam ne ñooy ñëw ziyaare aussi liggéey bi tey ban message nga leen di lancer. waaw message bi rek mooy comme li ñuy wax rek. bàyyi moom léppam teggin la bàyyi moom léppam donte nag maanaam naaj bi tàng na donte métti na waaye na ñuy ñaan taalibe nañ ñu muñal loolu bu ñëwee nañ def seen seen ziyaara te dëgg-dëgg bu ñu defee seen ziyaara teg ko ci yoon dinañ am seen ziyaada te moo la Mawlana Cheikh Ibrahim wa bërëb bii képp ku fi ñëw ni fi ñëwee ak ni ngay demee du bokk ki yow mi ñëwoon nii booy dem rek beneen nit la ñuy gis ndax ci yokkute ci ci tawféex ci faju aajo ci mboolem li nga xamante ne kat ñëwee nga ko kon dëgg-dëgg képp koo xamante ne ñëw nga fi ci sant yàlla ngay ñëw waaye ci santaat yàlla ci ngay demee ngir ndolol bi nga xamante ne am nga ko fi. macha allah ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yi. alhamdulilah kay macha allah gërëm nañ leen sant nañ leen yéen it. mu ngi noonu. Euh, leer na euh, wax na ko teggin lu ci am solo la euh, ci pays bi pays bi mel na ni base bi la mooy fondement bi faaw nga am teggin boobu sax boo bëggee jëriñu. Euh, donc lu am solo la ñu bàyyi ci xel. xanaa ñu bàyyi leen jën dund ambiance boobu rek. également que ne xëbru baay bi euh, am na kilifa yoo xam ne ñoom bu ñu see ci bërëb bi également faaw rek ñu tijjil leen buntu ñu mën a yegg ba ci biir xëbru bi jéem def seen ay euh, tawraat jéem a ñaan seen ay soxla waaw jéem a euh, maanaam feddaliwaat seen kóllëre seen cofel ndokkelaat seen sëriñ mooy waral ñu tijji bunt boobu rek ñu yegg ba ci biir bërëb bi mu ngi noonu ngeen doon seen sànq ci image yi benn mbokk taalibe boo xam ne dimbali nañ ko ba mu dugg ngir yeggali ziyaaram ci biir xëbru bi waaye it teewul mbokk taalibe yi également ñoom ñëpp ku si nekk également yaa ngi wëyal sa ziyaara it Euh, même boo yeggul ci biir bërëb bi également yalla dimbali na la yang koy weyel diko def à côté ndax il faut préciser que né bërëb bi également fo meuna taxaw rek wara meuna def sa ziyara ndax ñom ñëpp de ku ci nek da koy yegg bo mënee approché amna ko xal ci biir dafa melni amna ko doy waar ci biir noonu la nag frisson yooyu du ci ñàkk xam ne yëg-yëgam dina ko ëpp doole ba mu amee benn melokaan bi waaye d'habitude il faudrait rek ñu comprendre leen ndax bàyyi li muy ñamle moom bu la ko ñamalee noo def rëj-rëj solo am na solo am na solo lool xanaa bàyyi aale ñu jéem a avancé euh, jéem a xool yeneen xëbru yi ci kanam euh, te xam ne bërëb bi également du sëriñ bi kese moo fi nekk moo fi tëdd am na yeneen ci njabootam ñoo xam ne également mun nañ fi mun nañ leen fi fekk euh, comme fi ñu dugg nii rek fi ñu dugg nii également euh, ay njabootu sëñ bi ñoo fi tëdd fekk nañ fi nag euh, benn jëwriñ joo xam ne daanaka ci bërëb bi la nekk euh, di fi xitmal sëriñam xanaa ñu jéem ko laaj rek ñaari baat par rapport ak ziyaara fajar bi fii ci xëbru Maulana Cheikh Ibrahim sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi Assalamualaikum di fay salaamaaleykum wa rahmatullah. tur beeg sant bi. waaw maa ngi tudd Bada. maa ngi sant Mbay. maa ngi wuyoo Bada Badjo élément min ka ilayka bi taalibe Cheikh Ibrahima bu mag bi. Eh, tey ñu la fii ci bërëb bii ban bërëb la ñu nekk. ak lan ma fii sa taxawaay. Ah, tey fekk nga ma ci bërëb bu ma neex bërëb bu ma miin sama bërëbu sëriñ sama bërëbu soppe. te bërëbu imam Assane Cissé. bërëbu yaa Faatumata Zahra di yaayam ak bërëbu xaafisul quran bu mag bii nii wax yaa Faatumata Zahra ah, yaa booy Zayda foofu nga ma fekk nii ma toog nga fi xidmal sa sëriñ waaw ma ñëw fi pour xidmal sëriñ bi pour taxawaay fi benn genre taxawaay boo xamante ni pour gan yi nga xamante ni il est loin de dañu jógee fu sori te dañuy ñëw ba fii nii pour ziare kese indi leen kenn ñoru leen lu du Imam Assane kenn ñoru leen lu du yaa kenn ñoru leen lu du yaa Zeyda ñu bàyyi seen itte yëpp bàyyi moom xam nga ne kenn du ko laam-laamee international du international mais dafa am ñoo xamante dañuy ñëw carrément pour nàngam am na ñu bëri dëj yaa Boo Zeyda ba muy am fekku leen fi corona dafa am ñu bëri fekke wuñu woon dëj bi na ñu woon génn ginnaaw bi corona bi demee ba jeex gàmmu gi teddu ñu bëri dañuy ñëw pour suñ ñëwee tey dañu bëgg a xam boo leen kii Imam Assane la Yaabo Zeyda Fatoumata Zahra moo nekk fee day day trop da gis da nga leen koy wax nga gis ñu góor loolu moo ñu fi taaj moo si présence pour wan nit ñëpp ñu xam carrément bu euh, liggéey bi jafewul fii dugg beeg génn bi organisation bi est-ce que leen ci coono. non non waaye not ndax sababul fayda bi mu ci def liggéey bu am solo. police yi tey ñoo njëkkoon ñoo fi njëkkoon nekk sa avant sabab bi mais ku ne xam na ne sababul fayda bi. ñoom bu ñëwee fii nii seen liggéey car macha allah. Mm-hmm. waaw ñoom bu ñëwee fii dañuy liggéey liggéey bu am solo. waaw dañuy taxaw organiser ko. ñoom ay taalibe lañ. waa gis nga yaa ngi leen dégg noonu. dañ koy defar benn genre boo xamante ni chaque benn cinq minutes. danañ mën a bàyyi benn dix personnes ñu dugg góor. buñ taxawee ziar jàppaleen chrono cinq minutes. suñ paree ñu génn ñëw ñu jàppaat beneen chrono boo xam ne cinq minutes lay ne. pour jigéen ñu bañ a jaxasoo ak góor ñi. Mm-hmm. liggéey bu am solo. tay est-ce que ndaw yi également ñu ngi leen ciy jàppale ñoom euh, taalibe yi nga xam ñu ngi ñëw di ziar. si si ndax gars yi ñu ngi fi ñëw ak ëdëb ñu ngi fi ñëw ak yar ñu fi ñëw ak teggin waaw fi ñëw ñëw am solo boo xamante ni sax yow da ngay dem ba da ngay nit ay moromam ñu bëgg a xam nga bëri di dina am mais dañ ci gis ñoo xam dañuy rester tranquille bàyyi ñee ñu njëkk dugg jël seen temps ñu xam ñoo ut ñoo ci kon ñoom waruñoo nekk di tël tël la wala ñuy rëj rëj la mais ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ñoom seen bopp. loolu dëpp boobu day am solo la ci pays bi. loolu lu am solo la am na solo trop trop lu am solo la dafa am solo bilaahi waaw lu solo la. ngi lay jaajëfal bu yi. maa ngi leen di jaajëfal di leen laaj bi may nuyoo sànq laajuma télé bi ban rajo bi ban rajo la télé bi ban. Dakaractu. ah Dakaractu. ah Dakaractu. waaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla. fi ñu dégg yeneen tele yi mu gën a kaw seen njot mu dégg ko fa ci guddeeg mawlid bi ngeen ñëw fii yàlla sàmm tele bi aar ko ba yóbbu ko fu moromam yëpp yóbbu ci kaw a kaw yàlla defal leen jàmm yéen ñi fay liggéeyee yow mi di ma laaj ki di ma caméra yàlla defal leen jàmm ak tawféex may leen ngeen continuer gàmm ak jàmm ak salaam ci barke Cheikh Ibrahima alxuraan kàddu gi bada bat zoo woon élément Cheikh bi su jubee du man yàlla la bu ci nekkee am na ay dëng-dëng tamit du man yàlla la maa ngi nuyu ñëpp du nuyu gan yëpp nag di leen wax ne leen ñëw leen fu ñëw amee solo ñëw leen fi nit ñi war a dajee muy ëtt Baay Ñas bi muy Médina Baye leen fii ñoom ñoo ko moom suñ ñëwee ñun dañ leen di bàyyi dëkk bi saa buñ paree rek incha allah ñun ñu jëlaat ci barke Baye ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal aussi gàmmu jàmm ñu ngi leen di ñaanal jàmm yéen it jërëjëf yàlla may leen leer na leer na ci kaddu donc ni ngeen ko mën a seetloo rek euh, ci euh, image yooyu bërëb bu am solo solo solo solo euh, mbokku taalibe yi di ñëw di ziar si waaw am na solo bu baax a baax waaw am na taalibe yoo xam ne yàgg nañ foofu gisoo dañ leen di jéem a génne pour seen morom yi mën a dugg ñoom it def seen ziyaara mais mu doon lu am njëriñ di ay bërëb yoo xam ne ay nit yu sell lañu fi denc léeg-léeg dina jafe lool sax nga pénétrer jaar ci ndax euh, taalibe yi nañu bëree mais loolu mënut a jaaxal askan bi parce que Cheikh Ibrahim boo tuddee mbooloo rek bu ne lu tuddalee Cheikh Ibrahima war la mun a jaaxal ndax gis nañ ful ya nga xam ne moom lay drainer ci ay dëkk yoo xam ne sax du senegal ay dëkk yu sari lool li nga xam ne sax mooy Afrique donc ñu gëm sëriñ bi di ko xitmaal am fu ñu ko teg euh, boo ñëwee fii gis lii warula la mën a sax jaaxal mais dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax ci gudd ci bésu mawlud bi ñu nekk euh, fajaru mawlud bi mu fekk ñu ci bërëb bi donc euh, muy loo xam ne euh, Dakaractu defu ko lu ay internaute am ak ay téléspectateur am yi nga xam ne dañ saxoo di ko suivre nga xam ne ñun ñii ñoo leen fi teewal doon fi seen ay bët waaye doon fi seen ay tank ah doon fi seen kaddu ba tax waruñu mënoon mënuñu woon leneen lu dul teew fi rek donc def liggéey bi ah, ni mu waree xanaa wëyandil euh, li nga xam ne mooy ziyaara bi ndax taalibe yi tamit buñ ziyaara ba pare nañ leen fekk ci biti ñu mën a sànni kàddu ñu wàcc rek euh, wala wala ñu jéem a xalaa xool suñu côté droite fii rek jéem a saytu ay yaay booy yoo xam ne ñu ngi taxaw ñu laaj leen ay kàddu yaay boy noo def yaay booy man Aminata Mbaye laa tudd. foo bàyyeekoo. maa ngi bàyyeekoo Dakar. boo mënee janoog man rek ñu laaj la ci sa teewaay ci bëri bi. waaw dama fee teew rek pour siyaare. siyaare Cheikh Ibrahima Niass. ban yëg-yëg nga am dugg ci bërëb. suma xol seen dugg yi ànd ak sama gëm yàlla ak sama lépp gën a yokk maa ngi sant yàlla bu baax bu ma deewee ci bërëb bi di sant sama ñaari waajur di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaan yàlla ñëpp nu bàyyi bëggee woon Cheikh euh, Cheikh Ahmed Tidiane te bëggee ko yonent bi yàlla na yàlla def suñu xol yi bëggee ko ko ci barke bi yonent yàlla Muhammad lépp luñ fi ñaan ci lu baax ak luñ xéene ci lu baax ci njaboot gi ak ci Sénégal lépp lépp yëpp yëpp tamit lu baax yal nañu ko yàlla defal defal ko njaboot gi yëpp defal ko mbooleem àddina bi defal ko mbooleem julli bi ngi sant yàlla di leen gërëm ci barke bi lu la lu la lii man Baye Niass sama sëriñ la te man fii laa dëkk ci Sine Saalum gi sama sëriñ la ba may xale ba léegi bu Baye Niass am dajee ba tey ba ña ngeen ak yëpp damay dem ba léegi nag Dakar laa nekk léegi ba léegi damay ñëw di siyaare si fii ya, ngi ñaan yàlla nag siyaare bi yàlla bu mu dog ba keroog bu mu fiy jógee te lépp ci ñaan ñun ñëpp ci bi ko kay yaay def ñu ngi lay ziar delloo ziar bu wér. tur beeg sant bi. Assa Dianka yaayu baay man ma tuddaat sama bopp. macha allah tuddee sama bopp Assa Dianka yaayu baay. parce que yéen doon soldaaru baay ba may wuy ji sama borom. loolu mooy moo moo waral sa teewaay ci béréb bi. ma moo waral sama teewaay ci béréb bi. ban liggéey nga xasee ne cëpp daal damay taxaw di gérer sécurité bi. Mhm. jàppale waa. sa sawaawu fayda ak police yi ñu jàpp ci liggéey bi defar daal ba mu rafet liggéeyal Cheikh daal la ñu loolu daal moo ma fi indi daluma fenn bëgguma lekk bëgguma naan liggéeyal Cheikh Ibrahima ba ñibbi jot ma dellu kër mhm. ak Cheikh Ibrahima loo ciy jëlee sant rek sant ndax bu ma liggéey liggéeyee Cheikh Ibrahima dama koy liggéey ak fierté ak mbégte ndax dara ñoruma lu dul Cheikh al sama yaay murit sama papa murit mais man maa judd bëgg Cheikh Ibrahima te ci lay dee barke Cheikh Ibrahima dama bëgg Cheikh Ibrahima Niass te ci laay dee incha allahu rabbi dama fas yéene di ko tarbi yu doon soldaara ba ba la bàyyi defal bàyyi bàyyi lima ma defal bëri na bàyyi daf maa génnee ci lëndam dugal ma ci leer bàyyi li ma defal bëri na bu koy lim sama xol day tooy du ma bëgg a wax li ma bàyyi defal yal na fay yaa rabbi ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal gàmmu jàmm amiin yaa rabbi ngeen fekke barke bàyyi yaa rabbi jërëjëf jërëjëf waaw da da da di moment yo xam ne également émotion y a une très forte émotion bo xam ne ça se dégage ah day dem ba ci paroxysme sax ko tubab di duppe maanaam day dem sax ba day dépasser euh, taalibe bi maanaam ko nga xam ne moo amee yëg-yëg bi souvent mu koy yóbbu ci ay dimension xaal xaal boo xam ne euh, la muy sentir da koy ëpp doole léeg-léeg mu dikke ko ay jooy euh, amaana sax souvent mu dikke ko ay ree ah bàyyi na sa mel noonu ci yëg-yëg bi la donc ku nekk ak nag tolluwaay ba nga ci am moo waral benn yaay booy moom mu koy sentir xolama fees xolama fees moo waral sensation yoy nga xamné euh da koy am euh amna benn mbokk taalibe bu may interpeller fofu ñu fekk ko ci bërëb bi également euh, euh, sëñ bi no def. alhamdulilah ñu ngi santé yàlla bu baax. Euh, tur beeg sant bi. Cheikh mohammed tiami euh amna émotion buñ fi gis légui yaay boy baa tour tuur euh est-ce que am nga ci impression lu waral li waaw alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين إمام المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooloo mi siraan seen télé bi yëpp ak mbooleem ñi nga xam ñi ngi ñëw ci Mawlidu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nga xam ne mooy bi ñu tuddee international ci àddina bi ndax loolu li sabab mooy Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu yàlla moo ko def mu nekk di international euh, lii ngay laaj nag ni nga ko waxee la rek xéwal la ndax jooy dañuy wax ne ñaar la nit dana jooy ci bànneex nit dana jooy ci naqar danañ jooyu bànneex daay man borom boo làmbee ay ronkoñam day seddu guy jooyu naqar nag moom daay man boo làmbee ronkoñu borom day tàng lii nag jooy la ñuy tuddee ci xaal xaal nag mooy xaalam xalam bi nga xam ne nii moom la yàlla tànn def ko si doomu aadama xaal boobu ci la toll fi mu nekk nii ndax fii mu duggoon di jooy mooy barabu Cheikh Mawlaaye imaamul akbar Mawlaaye imaam Hassan Cissé radiyallahu taala anhu fii lañ ko denc fii lañ denc itam yaayam Seydi ma Seyda Fatimata Sahara Niass mi nga xam ne mooy taaw Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu fii lañ denc itam Seyda Mariama Niass mi nga xam ne mooy xaadimul quraanul karim moom moo doon xidmal alquran ci dooy Mawlana Cheikh Ibrahim yëpp nag waaye moom da cee amoon jagle radiyallahu anhu loolu moo tax li nga wax ne li muy tur ay xewal la dëgg dëgg ay xewal la xewali kese kese kese la ndax jooy yi moom àll bi ci yàlla lay jugee te ci yàlla rek lay dellu gannaaw loolu ñu ngi sant yàlla bu baax di leen ndokkeel yéen itam seen teewaay fii ak itam di ndokkeel mbooleem jullit ñi nga xam ne teew nañ jugee ci àddina wërngal képp ci ay barab yu fasantikoo barab yu wuutee ay langue yu wuutee itam ak itam ay idne ay nationalité yu wuute ci àddina bi dajee nañ fi te loolu lépp li ko sabab mooy diin al islam mooy tariqatu tijaaniya mooy faydatu ibrahimiya bii nga xam ne fondement am mu ngi jugee ci lislaam ndax lii yàlla moo digle ci alquran ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna aqwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun yàlla nee na julli ñi ñëpp ay mbokk lañ nañ xéwénal seen diggante mbokk googu te ñu fondement ko ci ragal yàlla su boobaa rek yërmande yàlla dina leen ñëwal loolu sabab na ci bis bi ak euh, waxtu yi ak guddi gi ñu dëgmal muy guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne doy na ci rek ci yeneen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko màggal ba wax ne wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiin moom la yàlla tànn yónni ko ngir mu nekk di yërmande ñeel àddina bi yëpp loolu yonent yàlla Muhammad rek la ko yàlla may sallallahu alayhi wa sallam ndax bépp yonent bu ma sa ñëw ci kaw suuf sa nubuwatu ak sa yonent sa risalatu loolu mu ngi déparé ci fi nga xam ne fi dañ la yónnee ak fi nga génnee àdduna te itam dañ la daan yónni mu yem ci sa ñoñ sa waa dëkk sa waa xeet mi daan na yonantu daan na ko doxal ba ak yonantam jeex te du génn lu mat téeméeri kilomètre waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy seydil awalina wal axirin moom yàlla da koo wax ne ko wama arsalnaaka illa kaafatan linnaas yàlla da koo yónni ci mboolem kuy nit rek ku weex ku ñuul ku zone ak ku xonq te ñeenti couleur yi ñoo am ci nit ñi ñëpp ci la ko yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag wax ko ci alquran itam ne moom yonent sallallahu alayhi wa sallam moom dana ko nettalil xibaar yi mbooleem yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci kaw suuf ngir lan loolu luy xel ji maanaam lan mooy njariñ li yàlla na ko dinaa ko dëgëralee sa xol ci gëm yàlla moo tax alquran yàlla wàccee ko ne inaa nahnu nazalna sikra waaye wa inaa lahu lahafisuuna ñun yàlla ñoo wàccee alquran def ko muy waar ba tey ñun yàlla ñoo koy sàmmal suñu bopp moo tax alquran ci sàmm googu yàlla di ko sàmm diko tourner ci xolu jullit ñi ñukoy mokal rawati na ci ndaw ñi rawati na it yàlla meñu tanef ci benen tanef muy Cheikh tiyani Tidiane radiyallahu taala anhu yàlla def muy qatimul wilayatu di itam seydi kullu awliya illahi lawalina wal axirin xaatimil maxrifati bi sa xaatimul wilaya Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mooy saahibul tariqatu ahlul jannati mooy sangab mboolem jëm aljanna loolu yàlla moo ko jagleel ci tariqatu tijaaniya moom Cheikh Tijaani radiyallahu taala anhu Cheikh Ahmad Tijaani moomu nag radiyallahu anhu dige woon na ci mbot mii ñuy wax fayda mooy lii dajale addina bi yëpp fii Medina ndax Cheikh Ahmad Tijaani dige woon na ne ci biir taalibeem yi yàlla dina ci feeñal ndaw loo xam ne incha ci moom ndaw loolu la addina bi yëpp di xamee yàlla yokkuteem ci diine ak yokkuteem ci tariqa lim ci liggéey incha allah adduna yëpp dinañ ci teg bët. mais li gën a yéeme ci mbiru Cheikh Ibrahima. mooy que at mu jot. gàmmo gi day gën exceptionnel. lu waral loolu. waaw loolu li ko waral. alhamdulilah rabil alamin beneen yoon man nañuy wax ne. li ko sabab lépp. mooy lu baax. ak lu rafet. daay man day jël kanam. ndax yàlla wax na ci alquran ne. al jazaawul ixsaanu. ilal ixsaan. yàlla nee na du fayee mbaax. lu mooy lu ko gën a baax du fay lu rafet lu moy lu ko gën a rafet Cheikh Ibrahima nag radiyallahu anhu moom yàlla dafa def mu nekk nit koo xam ne bi mu ñëwee ci jamono rek moom yëg na ne jamono jii am na borom te borom jamono boobu war nañuy def yitte mboolem àddina bi xam mooy kan bàyyi intéressant am ci àddina mooy nit ñi xam lan mooy yàlla maanaam mu tànn ñëpp xamal leen lépp li leen di jariñ te nit xam-xam lu mu bari bari bari bari daanaka ci zahir la waaye xam yàlla gii nga gis Cheikh Ibrahim indi te it duut lum sosle dafa nekk ndigal ndax jàng nañ ci alquran fa yàlla yi digle ne faxalam annahu laa ilaha illallah na ngeen lan mooy laa ilaha illallahu wax na feneen ne wax la mu anna fiikum rasulallah na ngeen xam ne ci seen biir yéen yeneen teb yàlla bi mu ngi ci seen biir yàlla waxaan na feneen itam ci mbiri xam bi nga xam ne mooy xam bi wér ci mbiram fayda nga xam ne xam yàlla dañ ko war a xam wax na yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun yéen ñi nga xam ne ragal ngeen yàlla dëgg dëgg ragal yàlla bu leen nangoo dee lu mooy musal ngeen seen bopp musal nag mucc dëgg ñi ko yàlla may ak liberté mooy ñi am fayda bu la yàlla mayee nga am ci mbootam fayda xam yàlla rek am nga liberté ci àdduna ak àllaaxira mucc nga itam ci àdduna ak àllaaxira ñooñ fayda ragaluñ dara ëllëg nam mu nammuñu dara ëllëg àllaaxira ndax ñoom am nañ lu ëpp aljana mi leen di dig am nañu itam lu ëpp safara mi leen di dig ndax lu nekk la ko jëmmal moo ko gën a jëmm te yàlla moo jëmmal aljana yàlla moo jëmal safara kon yàlla itam moom la ñooñ faydu am ñoom am nañu yàlla ndax yéen daana wax na ku am yàlla rek am nga lépp waaye ku amul yàlla amul dara waa fayda nag yàlla dana may ñoom dañoo am yàlla te am yàlla googu ñu am moo tax mënuñuy gisati lu ëpp yàlla di la laaj rek dernier message bi nga xam ne yaa ngi koy lancé à l'endroit peut-être de la jeunesse ndaw ñi euh, ci li nga xam ne mooy faydu bi alhamdulilah ndaw ñi ak faydu di leen wax ne nañ tënku ci njub te tënku ci xam-xam ndax yàlla dafa wax ne iqra ñun suñu téere ci lañ ko ubbee iqra jàngal ndaw ñi nañ yittewoo jàng ndax jàng escalier la ci xam-xam boo xamee ci zahir moo lay puus nga dox jëm ci baatin ndax da nga xam ne am na lu xam ne lii ñu jëmmal nii nga jàng ko ci zahir li ko war a jëmmal ci baatin lan la war a doon loolu mooy tax da ko war a jéem a xam moo tax olof di wax ne garab lu mu kawe kawe ak lu mu rëy rëy lu mu meññ meññ itam reen bi ko téye mu ngi suuf te doo ko gis ak bët loolu mooy baatuñu boobu ñuy namm àddina yëpp nag yéem na leen muy mbiri fayda waaye mbir la moo xam ne yàllaa ko digee ngir joxe ko muy liberté ñeel doom aadama rek ni nga xamee ne yonent yàlla Muhammad yërmande la ñeel alam bi yëpp nag alam moom buñ ko waxee yàlla rek ngay génnee teg fee li ci lépp ci xaalam yi na googu ñuy jàng ci la bokk waaye ndaw ñi moom ak euh, xam-xam nañ jàng rek incha allah jàng moo leen di xomat bañ dugg ci mboolem buntu yi nga xam ne dana leen jëriñ ci zahir dana leen jëriñ ci baatin. macha allah ñu ngi lay jaajëfal. alhamdulilah te di la ñaanal uh, mawludu jàmm. macha allah yéen itam yal yàlla def nekk suñ mujj ak mawlid yal nañ fi dajee ay ati at seen mbir yéen na ko yàlla yóbbee kanam yal na ngeen ba àdduna yëpp di leen seetaan ci jàmm ak salaam. wa salika ala allahi bi asisin wa salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. macha allah mu ngi noonu uh, muy lu leer. Euh, yaay booy bëggoon na ci sànni kàddu. Euh, noo tudd. Fatmata Zahra yaay imam Assane Cissé. yow foo bàyyee ko. man ñàgg laa bàyyee ko. Mhm. Mhm. daaw daaw ñëw ma woon sama yaay moo feebar. Mhm. ñëw ma woon ren moom macha allah teew naa. di ñaanal sama turandoo yal na yàlla yokk leeram taas si barkeem. ci barke salaatul faatiha. maa ngi ñaanal ñëpp. ñaanal waa Sababul Faydu ñaanal seen rajo. Yalna na jëm rajo rajo bu ay rajo rajo ci barke baay ci barke maulana cheikh al islam no dundé gamu ren euh contane rek daw ñew ma won wante ma ngi koy sétane ci télé contane ren bi nga tégaté sa tank ban yeg yeg nga am contane rek contane rek waaw contane rek di ñaanal ñim fi bay yépp di ñaanal ñim fi bay njabotam yi yalla na ci yalla tek loxo ci barke bay ak bayam amin waaw amin Euh, lu la Baye defal. kontaan rek man maay taawu baañus lañ ma tuddee wante heure bu ma ñëwee rek. Uh-huh. heure bu ma ñëwee di sant yàlla. Uh-huh. sant sama ñaari waajur sama yaay day toog mu ne ma Fatmata nit da ngay tënk si njub. Uh-huh. nit bul jënd loo xam ne léwu la. Fatimata Zahra lañ la tuddee yaay imam Assane Cissé. dama bëgg nga mel ni sa turandoo nga muñ. nit da ngay muñ boo muñee yàlla dina ñëw waaw. macha allah waaw ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal gàmmu jàmm. waa incha allah. jërëjëf. jërëjëf yaay yaay booy bi tam daf bëggoon a sànni kaddu ma mën nañ xam noo tudd. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla di leen tatagal. Mhm. di ñaan yal na leen yàlla samp. amiin kontaan te ñun mënta romb sax bu ne lim ñu jëfal dëgguñu paas dëgguñu avion dëgguñu dara suñuy tànk la ñu ñëw di siyaare. Mhm. man de lépp lu may loo xam ne jaaxle naa fii koy wax te ko waxee balaa maa génne yàlla faj ko ndax sama borom kër moo sama borom kër moo daan jàkkaarloog bàyyi di wëy wëyi ibu juuf yi daan wax taxawal leen diina tey wér da tey wasifa ngoon xut bu rabbaan na soodaan mu ne baxraama ñes wax ma fi nga nekkoon ndaw ñey ci biiri xaaf baxrul hujjóot bi yaamat baay biddiw baa nga fàkkee bi daanu la ibujuhui Ibou Diouf woy Ibou Diouf moom moo jàngal sama borom kër man sama borom kër mooy Abdou Dieng Abdou Dieng ma kéwee jaw moo yar muy sël ma xabbaay ko ñaari fas damaa yàkkamte kii mooy saatu ku ko log loggi bàyyi ko lan mu ne ko mooy yow lu la nit wax rek ñes bu la jàkkaarleeg yow rek gis leneen benen melo boo xam du la mu ne ko yow bi bii mu tuddee ko mu ne ko fër ko mënu koo tere meññ mu ne ko loolu mooy xan mu ko mooy ku la xay bëgg laa yëkkati mooy son waaye du tee rek lawtan ngay sànni kon nag ñu ngi sant yàlla ñu ngi gërëm yàlla mu joxati ko aw fas mu tuddee ko lan mu ne ko mooy melax bu ne raaye rek nga xëpp say bët waaye leer googa moom du dàq képp koo xam gëm yàlla ne na ci yow dox na ko nag fukki fas ak ñaar dama xam am ci ma di dogal sama doom daanoo na ci jumaa ji ci bi ñu di ko wax baay ka ko téye mooy baay mu tëdd hôpital réanimation ñaar fukki fan ak juróom ñaar kon yaakaar naa ne jëmm ji ku ko xam ku ne baay kenn du ko bañ baay kenn bañu ko ñàkk koo xam la bool bu njëkk rek teg la kon nag ñu leen di ñaanal yàlla yal na rajo bi gën a jëm kanam yal yàlla leeral euh, euh, télé bi yal na yàlla leeral xol yi yal na leen yàlla def ngeen di ndaw yoo xam ne yu yàlla tabb ci lislaam yal na yàlla def wax leen doom yi wëttu alxuraan yal na leen yàlla jox doom yi wëttu alxuraan lépp lu nar a ñaaw yal nañ ci yàlla musal ku fi ñëw ak wér ci gàmmu gi yal na gën a yokk ku fi ñëw ak wéradi yal na ko yàlla dàq ba bum del seeti suñu réew mi yal na ci yàlla def jàmm suñ gouvernement yi bitim réew ak ku doon yal na leen yàlla def ñuy déggoo ndax déggoo indi jàmm yal nañu ko yàlla defal allahumma salli ala sayyidina muhammad jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf yaay booy jërëjëf waaw donc euh, muy lu am solo waaw euh, yaay booy da ci bëggoon sànni kaddu euh, tur beeg sant yàkkamti ngeen salaamaaleykum wa rahmatullah boo mënee jege si nii tuuti rek voilà asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mm-hmm. man maa ngi tudd Ndeye Diop. Mm-hmm. maa ngi dëkk Dakar. Euh, parcelle unité 13. Mm-hmm. maa ngi suñu bunt si Cheikh Ibrahima Niass mooy Cheikh Ousmane Mbaw waaw bu Dakar unité 13. léegi nag man dama gàmm si woon wax dëgg yàlla maa ñoo ngi dal coof ak foofu la ñu am kër man sama yaay ak sama baay ñu ngi fii ci armeel yi di nelaw waaw man taalibi Cheikh Ibrahima Niass la ma bëgg ko lool ci sama xol nag suba su ma yeewoo man gëm naa ne damay jox Cheikh Ibrahima Niass addiyaam ba pare waaw maa ngi sant yàlla julli si yonantam bu tedd bi salallaahu taala alayhi wa sallam di ñaan ngërmaane wàcc ci yonant bi salallaahu yonant ngërmaane yàlla wàcc ci yonant yàlla moom ne salallaahu taala alayhi wa sallam ngërmaane yonant yàlla moom ne salallaahu taala alayhi wa sallam wàcc ci Maulana ci wàcc ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallaahu taala anhu ngërmaane Cheikh Ahmed Tidiane radiyallaahu taala anhu wàcc ci Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye ak i xalifaam di ñaanal Cheikh Mahi Niass yal na yàlla wéral ko kàttanal ko di ñaanal porte parole bi Cheikh Mahi Cissé yal na yàlla wéral ko kàddu wéral ko dooleel ko lu sut njortam ci batti Cheikh Ibrahima Niass maa ngi ñaanal Cheikh Baba Lamine njabootu Cheikh Ibrahima Niass gi yëpp njabootu jaayiram njabootu baatinam yal na yàlla defal leen jàmm yal na yàlla defal leen jàmm ci barke yaa salaam maa ngi ñaanal waa Soudan waa nigeria waa Londres waa biti waa biir waa région yi waa euh, départemental yi maa ngi ñaanal waa bidonville yi yal na yàlla defal ñëpp jàmm ñu ñëw ci gàmm gi yal na leen yàlla yóbbu si jàmm ak salaam ci barke yonent barke Cheikh Ibrahima Niass barke Imam Assane yal na yàlla taas ñu ci barkeem yàlla yokk seen leer ñi ci jumaa ji yëpp njabootu Cheikh Ibrahima Niass bi yëpp ak sama ñaari waajur ya nekk ca armeel ya di nelaw yal na yàlla defal juliti yàlla yëpp jàmm yal na yàlla defal juliti yàlla yëpp jàmm ci barke Baye Yaara bi ci barke Baye Yaara bi maa ngi ñaan ci barke Baye sama njaboot gi li ñu bëgg yal na yàlla may leen ko njabootu zahiram njabootu baatini maam Baye yëpp ci barke Baye yal nañ gisante waat ak na yàlla defal leen jàmm guddal seen fan rajo bi yàlla yëkkati ko ci barke Baye jëf ñu yëngu si jàmm jërëjëf jërëjëf xol bee fees xol bee fees mu ngi noonu bi ñuy dugg ci bërëb bi daanaka leeragul woon gis ngeen euh, jant léegi mu fenk euh, muy firnde bi nga xam ne taalibe yi am nañ ko ci Cheikh Ibrahim donc Serigne baa ngi noonu di euh, lu am solo Egalma. donc muy lu am solo lu am solo sëñ Mahi la sëñ Mahi Cissé ibn Cheikh Aliou Cissé taalibe yi nag dañuy rëj-rëjloo ngir rek

ci ndigalu nag xalif bi ah donc Serigne Mahi Ibrahima ñas euh, moom mi nga xam ne tey euh, euh, moom moo toog ci kilaafa gi di ci def liggéey bu am solo bu rafet a rafet a rafet jëmale ko ci pays bi waaye aussi taalibe yëpp ah aussi yëpp rawatina ay rakkam yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi waaye Euh, mbokku taalibe yi parce que souvent dañuy wax ne taalibe Baye si boppam euh, sëriñam la am donc ñoom ñëpp dañuy xidma euh, di def liggéey bu am solo ci li nga xam ne mooy faydu Baye bi. la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 إلا الله